wala taat fii bi nadaratin taati lana bi zafari ñu ngi ñëw léegi suñu darsu nasiha ñu ngi jéggalu ci yéex a koo commencé ñu ngi yemoon démb ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay ak ñoom ak ni nga xamante ne noonu la leen yare woon ba wàccee ci ñoom mu leeralal leen secret yi digle yi ak tere yi li tax li li ñu digle ñu digle ko ak li ñu tere itam lu tax tere ko ak xaqaayiqu sabab yi ak lawaazim yi ak li nga xamante ne moom mooy liy feeñ ginnaawam ci ay fitna ak topp sa nafsu dégg nga ak yéemu sa yéem sa bopp ak topp yu bon yi yëpp suuf yi waxtu woo xamante ne xamal nañ la yàlla dëgg-dëgg xam jël nañ àddina bi ñu teg ko sa loxo su boobaa ci yow la des nga xam àddina bi ni muy doxee wala nga ñàkk koo xam waaye mbuutu àddina bi moom teg nañ ko sa loxo loolu ginnaaw bi nga fannaaw moom mooy baas bi waaye taraqi bi nag mooy dox bi ci yàlla loolu moo tax nga xam dëgg-dëgg euh, asraaru nawaahi yi ak awaamir yi maanaa digle yi ak tere yi luy sabab bi buñ la waxee bul naan sàngara rek dafa am lu tax ñu teree la ko yooyu nag war koo xam zaahir yan war nga koo xam baatin yan war koo xam itam ci baatinu baatin yooyu nag soo ko xamee bul njaalo bul sàcc bul fen del lekk del naan del sëy del nangam nangam yooyu yëpp ay digle la moom itam war nga xam lii ñu ma tere nii loolu moo tax ñu tere ma ko duur rek ne dañ ma ko wax rek ni ci bànneexu bakkan parce que yonent bi yàlla daf koo teel a layal ne ko wama yantiqu anil hawa yonent bi du wax ci caaxaan kon képp koo xam ne du wax ci caaxaan nag kooku lu mu wax waxam lu jar a seetaat la dégg nga duur rek daf ko wax nii nii nii nii hasardement waaye daf ko wax ngir nga xam kii xaqiqatan waxam bi dafa am lu mu làmboo ci zaahir am na lu mu làmboo ci baatin am na lu mu làmboo itam ci baatinu baatin loolu mooy te amul léegi nag saxaaba yi bi ñu xamee ne yàlla dimbale bañ teg foofu seen tànk fa hamidullaha après ñoom ci lañu sant yàlla alladi xallasahum min al halaaki yàlla mi nga xamante ne moom moo leen génnee moo leen sellal moo leen dindi ci xalkaande wa asbaab yi ak sababu xalkaande yëpp ndax nit dina def dara te fekk lii muy def xalkaandi ci la jëm te fekk moom xamut loolu waaye waxtu woo xamante ne ràññilal nañ ko loolu noonu dina mën a moytandiku loolu moo xam ne lii ma doon def kat ndek su ko toppoon ci xalkaandi laa jëm loolu nag moom mooy alhi alhalaaki alhalaaku wa asbaabuhu maanaam xalkaande ak sabab yi wa lawaazimihi ak naka la ñuy saxee itam ci loolu noonu bañ mën a mucc ci dëgg-dëgg xalkaande waaye loolu yëpp fu ko amee bi aazzi xalqihi nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam ci ki nga xam ne moo gën a tedd ci mbindeefam yi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la saxaaba yi amee loolu yëpp waaw walam yakun fihim mutaxallafun an xadrati rabbihi mu ne amu ci kenn ci ñoom koo xamante ne wuute na pay yàlla bi ci saxaaba yi man dama yaakaar na saaba yi ndeke bëri na ay maxjuub ñu xamul yàlla waaye kii dafa wax ne amul kenn ci ñoom koo xamante ne wuute na pay yàlla bi waaw wala ñi ci gën a mag boog wala mu yekkoon fiihi mutaxallafun an xadarati rabbihi amu ci ñoom koo xamante ne wuute na ak yàlla bi bi sababi ru'yati wajhi nabi mahabbatan wa fannaan lu taxoon loolu nag sabab bi mooy gis giñ gisoon dégg ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga kanamu yonent bi nag gis ko euh, bokkut ak gis Muhammad ibn Abdillah comme ni ko buur bi waxe woon benn góor bu doon euh, euh, taal benn góor boo xam ne taalibi Abu Yazid la buur bi dafa ñëw di ziyaara Abu Yazid Abu Yazid ne ko waaw kii buur bi ne ne taalibi Abu Yazid bi ne ko seen sëriñ bi ana kan ci yéen moo dégg waxam taalibi abu yazid bi ne ah, man de mus naa dégg benn waxam mu ne ko lan la wax mu ne ko abu yazid waxoon na ne moom képp koo gis rek seeram xaraamal na safara buur bi ne ko ah abu yazid day wax lu ko neex rek mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ko ah yonent bee ko gën a foor te abu jahalin ak abu lahab gis nañ ko te ñoom ñu safara mu ne ko déedéet abu lahab ak abu jahalin mosu ñoo gis yonent bi ñoom jiir mu abdullahi bi lañ gisoon waaye buñ gisoon yonent bi duñ dugg safara kon nga jàng ci ne gis yonent bi dafa am façon boo koy gisee ndax waxtu woo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow texe nga ci àgg ci yàlla da ngay àgg ci yàlla te loolu bàyyi mu ngi ñu ko jàngal ci saari man fu muy waxee ne bi sifaati zaati xaqan lay laysa lisaani melo yàlla bi dëgg-dëgg la yonent bi sallallahu alayhi wa am mu ne ran boobu yonent bi toll ci yàlla amul kenn ku ko fa ñaareel kenn ñaareelu ko foofu kon war nañ bàyyi xel ci yonent bi sallallahu alayhi bi ñu wax ne saxaaba yi gisoon nañ ko beneen bi war nañ jàngee itam taarixu eh, uweesal xarni uwees mi nekkoon ca eh, Yemen te yonent bi waxoon ne Seydina Omar ak Seydina Ali ñoom ñuy mos a dajeeg moom ci xilaafaam at bi leen yonent bi permettroon ci la uwees ñëwoon yonent bi seedaloon na ko ku bëgg bëgg la bi la keroog bi ko Seydina ba gis ko moom uweesal xarni dégg eh, wa weesal xarni nag bokkut ak zul xarnay ni ñu bëri dañ koy jaawale zul xarnay ni moom Égypte la dëkkoon ca Iskandariya waaye wa weesal xarni moom mu ngi dëkkoon ca Yemen kooku ku bëggoon yonent bi la kenn la woon ci xulafaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon yonent bi mbëggeel gu jéggi dayoo koo xam ne boo ko gisaan dafa mel ni ngaana tuñ yi dañu rëyoon bu naan sax xale yi dañ koy sànni xeer parce que dañ ko jàppe woon dof te fekk xamuñu woon bu la woon ci jamonoom dégg nga bu mu xale yi bu ngeen may jam bu leen ma jam ci tànk yi parce que guddi gi damay fanaane naafila te su ngeen ma jamee ci tànk yi du mu mën a taxaw pour naafi la sànni leen feneen rek ci yaram bi xoolal koo xam ne dem na ba yàlla yéegi ko ci maqaama xutbaanitu mu nekk xalifa yonent bi ba yonent bi di déclaré ñëwam kooku ay xale di ko sànni ay xeer ba tey lorut ci kenn gaañut ci kenn war nga ci jàngee kon borom maqaama dëgg-dëgg dafay jéggale dafay jëlale dégg te kooku mënoon naa tukkil àddina waaye doon na jikko yonent bi ndax yonent bi mu demee Taif ñu sànni ko xeer dafa wax yàlla ñii xamuñu ndax buñ xamoon duñ def lii waaye jéggal leen kon US moom itam noonu la meloon waaye li ma bëgg indi ci xisaam loolu entre parenthèse rek la woon mooy bi ko Seydina Omar eh, ñëwee laaje ba mu ñëw ak ak ak ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum bi mu leen laajee yéen yéenay ñan Seydina Omar ne ko man maay amirul muminin man maay eh, eh, eh, sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ban yonantu mu ne ko yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yéen mosu leen gis yonantu yéen taqandeer bi ngeen gis xoolal ku musta dajeeg yonent bi ci jamono ak koo xamante ne dundam bi yëpp yonent bi la ko àndal yow mi ànd ak yonent bi sa giiru dund ñu ne la mosoo gis yonent bi taqandeer nga gis loolu lu jar a bàyyi xel la tey bu fekkoon ne tey ku mel ni oustaz Barham Diop wala Seydi Aline Cissé wala Cheikh Omar Touré mu taxaw nga ne ko yow mosoo gis bàyyi xamoo sax luy bàyyi nit ñi dañ naan kii dafa réew loolu lañ lay wax te pourtant loolu am na ci wilaaya yonent bi sallallahu alayhi wa parce que us war na wax na ko Seydina Ali te wax na ko itam Seydina Umar ibnul Xataab te yonentu waxoon na in kuntu madinatul ilmi fa aliyu baabuha su fekkee maay dëkku xam-xam bi ali mooy buntu bi te ali bi mu waxee présenté wu us na ko yéen gisuleen leen bi bi taqandeer bi rek ngeen gis moo tax mu ne sahaaba yi biñ gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo leen yóbbee woon mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mahabbatan wa fanaan ñu bëgg yonent bi mbëggeel goo xam ne dañoo jeex takk ci moom loolu moo leen yóbbe woon ñu àgg ci yàlla wax naa la jamono yonent bi comme ñun ni ñuy tarbiyaani di jël salaatul faate yu bëri di ko sikkar pour fannaaw ci yàlla ñoom fekkul leen ci woon parce que ñoom présence su xaqiqatu muhammadiyatu moom lañ jàkkaarloo woon parce que xaqiqatu muhammadiya moo lay sëq sànni la ci biir pay yàlla bi dégg nga te loolu bàyyi daan na ko feeñoo Baye feeñoo na ko miraaran wax naa ko démb ci darsu bi feeñoo na ko ca Ghana feeñoo na ko itam ca ca fële ca Nigéria ba mu wax ne ay na barahaamu wa ma barahaamu hatta fannaw fi hubbihi wahaamu dégg nga radiyallahu anhu foofu nit ñi dañ ko doon xool di fannaaw ci yàlla di xool di fannaaw ci yàlla même ñoo xam duñu ay jullit sax ay chrétien lañ ñoom ñëpp ñu ngi fannaaw ci yàlla dégg nga ñu ci gën a foofu lañ jaar nekk taale Baye te jaaruñ sax faf ci islam dañu jóge direct ci ci ci ci e, e, maanaam kéefër ñu ñëw dugg ci ci ci ci xadraay maarifatu billahi mooy xaqiqatu ihsaan loolu lu jër a bàyyi xel la kon gis giñ gisoon jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon ñoom am na beneen melo buñ gisoon ci yonente bi waaye lan moo leen ko yóbbee mahabbatan wa fanaan mbëggeel ak jeex moo tax bëgg ak jeex dafa am solo dafa yéegee nit ki foo xam ne da gis nit di liggéey ba bëgg a dee ci du fa àgg lu tax àggu fa parce que kii lim ko rawee mooy mbëggeel ak jeex moo tax mbokki taalibe yi ñu bàyyi xel ci mbëggeel ak jeex parce que loolu mooy dëgg-dëgg aslu dégg nga yoonu suufiyanke yi mbëggeel ak jeex dégg nga mahabbatun mooy mbëggeel waaye fanna moom mooy jeex tàkk ci yàlla dégg nga te mahabbatu nag mooy cosaanu yëf parce que yàlla mbëggeel ci la amale lim amal kon nga xam ne mbëggeel moom mooy cosaanu yëf yi mu ne wa saara wajhu nabi sallallahu alayhi wa sallam mu mujj kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, yartasimu ay murtasiman bil fi'li fi haqiqati kulli wahidin minhum mujj kanamu yonent bi sallallahu alayhi mu nekk yéegéekaay boo xam ne daf leen di yéegee ñoom yéegeekaay yu doy waar ci jëf yi yaa ngi dégg waaye ci xaqiqatu kenn ku nekk ci ñoom ci sa xaqiqa dégg nga kanamu yonent bi sallallahu alayhi mu ngi nekkee sa yéegeekaay waaw ñoom da daan gis yonent bi rek di yéeg yéeg yu gaaw am na benn bis benn sahabi yu di xool yonent bi fixé ko rek ndeysaan sallallahu alayhi wasallam di ko xool di ko xool ba yonent bi ne ko yow yow lan nga may xoolee mu ne ko dama xam ne bu yomal xiyaamee fa ngay nekk du bokk ak ñun fañ ne loolu moo tax ma lay xool fi xoolin yoo xamante ne dégg nga bu yomal xiyaamee itam su ma bokkul ak yow fa nga nekk fekk sama bët yi fees na dell ak gis la yonent bi ci la ko ne xanaa xamoon ne nit ki ak ki nga bëgg yéenay ànd ba fa ngeen nekk keroog saxaaba yi dañoo kontaan ci waxu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam parce que ñoom yaakaaroon nañ ne duñ bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci ay manazil moo tax yonent bi yartasimu ay murtasiman bil fi'li fi xaqiqati kulli waxidin minhum saxiran aw kabiran mu ngi leen di yéegee yu gaaw yu yéegukaayu kawe yéegukaayu yëkkatiku dégg nga kenn ku nekk ñoom sahaaba yi yaa ngi dégg ci xaqiqaam ak fi nga toll rek foo toll boo jàkkaarloog yonent bi rek mu ngi lay yéegee loolu nag mooy li olof yi di wax ne euh, wali yàlla dafa yore jikko mbonaat mbonaat du nampale waaye day xool doom yi rek doom yi suur noonu la yonent bi meloon daf doon toog rek jàkkaarloo ak ñoom yaa ngi dégg waaye bu jàkkaarloo ak ñoom rek bu jàkkaarloo ak ñoom rek kenn ku nekk ñoom nga yéeg ci ay maqaamaat yu kowe nga yéeg ci ay maratib yu kowe ci yàlla noonu la doon dundalee saxaabaam yi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na leen waxtaanal itam ci xam-xam yu jéggi dayoo xam-xam yoo xam ne Abu Hurayra radiyallahu anhu wax na ne solo naa ci yonent bi ñaari ñaari mbubb mu ne benn mbubb bi yu pil naa leen ko mu ne mooy hadis mu ne waaye am na mbubb moo xam ne su ma leen ko waxoon yéen ñii jullit yéenay daje ngeen rey ma parce que da ngeen di yaakaar ne da nga man damaa ñëw pour yàq li yonent bi sallallahu alayhi indi kon ñu bàyyi xel ci waxu Abu Hurayra bi ndeke am na eh, eh, sahaaba yi dañoo ëppanti woon degré ci yàlla dañoo ëppante woon degré ci yàlla am na ñoo xam ne àggoon nañ dayoo ci xam-xam ci yàlla foo xam ne bëriwut ñu fa àggoon dégg nga te loolu yaa ngi koy xamee ci hadisu Abu Hurayra bi radiyallahu anhu loolu nag ñu bàyyi ci xel itam moo tax suufiyanke waxtu nekk dañu toll ci maqaam yooyu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mus ko wax mus na wax ne képp koo xam ne sa xam-xam na ci xaqiqatu muhammaditu juróom-ñaar fukki xam mu ne mën nga jël benn aaya nga firi juróom-ñaar fukki yoon te benn bu nekk du bokk ak sa morom kon suufiyanke yi seen lab ci xaqiqatu muhammaditu kéem niñ labay ci xaqiqatu muhammaditu noonu la seen xam-xam di toll ci xaqiqatu muhammaditu waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la doon nàmpalee sahaaba yi ci seen xaqiqa kenn ku nekk ci sa tollu tolluwaay saxiran aw kabiran moo xam saxaabi yi bu ndaw la moo xam saxaabi yi bu mag la parce que amoon na kibaaru saxaaba ak sixaaru saxaaba dégg nga euh, loolu ñu bàyyi ci xel itam dégg nga xurran aw abdan yaa xam gor nga wala yaa xam jaam nga waaw yaa xam gor nga woon yaa xam jaam nga woon ñëpp yaa ngi dégg noonu lañ doon yéegee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye noonu lañ ko bëggee woon noonu lañ jeexee woon ci moom dégg nga zakaran aw untha moo xam Euh, euh, ku ku ku góor nga wala ku jigéen nga dégg nga wala ku jigéen nga gis nga bàyyi doon na maqaama bii ci ci ci euh, ci Mawlana Cheikh Ibrahim ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi doon na maqaam bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que fi mu waxee ne fa qultu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu l ilah fa faada min nii sirruhu fala ahad yaqsudu nii ma arafa allahu samad gis nga foofu la bàyyi waxee siwaun kibaarun aw sigaarun dina comme ni yonent bi waxee fii moo xam ndaw nga wala mag nga bàyyi mu ne maa wax laa ilaha illallah yàlla moo yónni yonent bi mu ne mbootu yàlla ba bee ci man amul kenn kuy jóg jëm si ci man lu dul dinaa la woon yàlla kenn ki mu ne moo xam mag la nag wala ndaw la sallallahu alayhi wa gis nga la newoon ci yonent bi feeñaan na ci Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu dégg nga <coughs> siwaun kibaarun aw sigaarun qad qarabal xabibu wal mazaaru moo xam ku jege la wala ku ku sori yaa ngi dégg wala koo xamante dafa ñëw rek ngir ziyaara si soo bëggee rek mu nekk dëgg ci yow rek dégg nga nga àgg ci ci ci ci pays bi dégg nga soit un saaluukun aw sultaanu yaa xam buur nga yaa xam baadoolo la dégg nga gis nga fi yonent bi mu ne yaa xam gor nga wala jaam nga yaa xam góor nga wala jigéen nga dakaran aw unsa kullu dalika kaana bi inayati rabbihim ñoom ñëpp yaa ngi dégg ñu ngi àndoon ak ndimbalal yàlla subhanahu wa taala ci nekk bi nekkoon ak yonent bi ñu ci yéeg ci ay maqaamaat yu kowe kowe kowe radiyallahu anhum wala taamula lahum fiihi te amul woon jënd maanaam amul daawul woon jënd duul luñ jënd daal duul luñ jënd duul luñ jënd buñ ko waxee maanaam duuloon loo xamante ne amoon nañ ko xam-xam ci xaal ci martaba ci yëkkati ko ci yàlla te nekkuloon loo xam ne dañoo yëkkati seen xaalis dem di jënd jëndanti ci marché bi yu demee noonu dégg nga loolu duut noonu lañ ko defee woon dégg nga dañu yàlla moo leen dimbale woon rek ñu ànd ak yàlla ñu dajee rek ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nangul ko bëgg yonent bi yéegi leen ci yooyu maqaama moo tax Baye Mbaye radiyallahu da doon wax ne dégg nga maanaam kuy jàmbaar xamuñu ko kuy góor xamuñu ko ku yàlla dimbale lañ xam yàlla dimbale lañ xam moo tax bëri na ku yàlla dimbale ngay bàkku nga yaakaar ne yow eh, eh, eh, jàmbaar nga fekk doo jàmbaar jarul ngay bàkku ndimbalal yàlla da nga àndal yaa ngi dégg am na ñoo xam ne ñoo la sut fuuf ci côté yu nekk waaye dangay gis na yow li tax yàlla yëkkati la fii danga ngaa ànd yàlla ndimbalal yàlla nag dafa ànd ak coobare yàlla masiatullah coobare yàlla loolu kenn mënu ci dara bëri na aarifuna billahi ñu ngi labee ci pays masiatullah maanaam ci coobare ak yàlla foofu la ñuy labee parce que ñu bëri dañ du nangu coobare yàlla lii moo soob yàlla lii la yàlla def loolu maatee ak yàlla la kenn mënu ci dara yaa ngi dégg noonu la yàlla teyee jël yonent bi wàccee ko màkka yaa ngi dégg mu jël lenn ci sahaaba yi boole ko ak moom 124 000 sahaaba mu am ñum bàyyi ñoo xamante ne ay xéefar lañ di weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ñooñu ba tey xamuñu xaqiqatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu nga gisee coobe rek yàlla ni mel moo tax waxtu nekk rek na ñuy dajee ak ndimbalal yàlla nañuy dajee itam ak coobe rek yàlla su ko defee ñu ngi tënk fii nii eh, eh, eh, nasiha bi ba suba incha allah allahuma salli ala sayidina muhammadin xaqa qadrihi wa miqdaari al قلامي ونفسي قد خدمت لذكره بذكر رسول الله أعلو وأرتقي dayratul fadli kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lañ ci jël gëstaloon sidi baram